dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. naa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax li xam ne lépp dëgg la. yaa fa amoo. Ndiaye na génne xaalis jënd ay matériel. yaa moom nga koy suturaal ci pare-brise yi na ubbi télé. arbitre sifflé na grand combat de la soirée fii ci arène nationale. Ndiaye yàlla nga koy suturaal ci na ubbi télé. mu nekk euh, journée Ibra Diouf muy Mbeewaan production. Ndeysaan Kalmu Ndour jóge ci li nga xamante ne moom mooy ci defet ci combat ak ki nga xamante ni moom mooy Junior. kii di bu Waalo jóge ci ki nga xamante ne moom Ama bu Malika mbokk yi te lépp ci arène national ñaari xale yi ñu ngi léewtoo longue distance Calme Ndour mbokk yi moo ñu woon à droite Waalo moo ñu woon à gauche léewtoo longue distance tegtal la wala lan loo ci mën a wax daal ah, ah na Calme ñëw na Caat Waalo Calme Ndour mbokk yi di ngeen dudd combat bu neex di bëggee képp koo xam te ne yaa à travers Kewel Info di wax en vers le novembre ci diggante Giro Seras ak Ndiaye Tine Bécaye Alliance Birame mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex di ngeen ko mën a am en direct sur Kewel Info ndeysaan Kalmu ak ki nga xamante ni moom mooy caat bu waalo ndeysaan caat bu waalo ndeysaan ah Kalmu Ndour ah caat génn na génn na ah <laughs> avertissement pour Thiat bu Waalo avertissement pour Thiat bu Waalo sifle waat na Thiat bu Waalo ak Kalmu Ndour père Pape Diagne waaw combat bi bu Waalo boo gisee ni muy abrégé arrière da ko wan dama laa ragal mais a songu loolu no bu ci bàyyiwul xel na fa woon bu ko songo bu ko uh-huh. ko daan bala mooy xalaat mu daan ko ba ñibbi le fait que relonge bi a def rek mooy diree ko toog ci rek uh-huh. di xeex ak moom di jam benn benn uh-huh. bu jógee nga buub ko mu jaaxaan di toog say tànk gis nga lu ma la waxoon. Père Pape Diagne ko nee ndeysaan ndeysaan Kalbu Ndour caat bu waalo Matar combat bu neex waaw combat bu neex la de toute façon Kalbu Ndour liñ ko santoon mi ngi koy def li ma ko digal loolu mi ngi ci ndax xam na ne caat xeexul ci tànk la jëm si mi ngi koy gérer quoi caat caat Kalbu ñu xool action bi ci génn wala du ci génn Kalbu mi door ci suuf mais caat dafa mel fi mu waaw fi mu jàpp baax na mais nag fii Calme euh, Ndour ni mu Calme moo gën a baax le Calme Ndour moo gën a baax le Calme delluwaat nañu fi mu ne ñoom ñaar zéro moo baax ba pare moo téye ngeen moo namour nga ni waaw Calme Ndour moo téye fu baax moo prolonge moo jiital loxoom bi ci biir moo téye gis nga léegi mi ngi ni fakkat na ko waaw waaw sama séeri wax na ko per sala biige kenn du yow de yaay làmb <laughs> ndeysaan samay xarit lañ mënul ñàkk Calme Ndour caat caat caat gars yi d'accord ñu ci di ngay bëree caat caat gars yi d'accord ñu ci di ngay bëree Père Pape Diagne daa ne d'accord ci ci lu waaw parce que Ndiol ak Ndama. Ah. am na ku gaañu ñoom ñaar. am na ku gaañu. waaw caat li ko arrangé du nii la war a mën a daane calme parce que poids la moo la sut soo ko tafee bëgg koo dem. Ah. li mu bëgg rek war a def mooy benn benn arrière. su dawee gëdd ko mu riñaan ko lamb ji jeex mais ni caat di bëree nii su ci continuer du daan Kalmu Ndour. caat bu waalo Kalmu Ndour gannaaw ñoom ñaar ñëpp ardo kon seen xaalis jar na caat bu waalo lu ko arrangé ndeysaan da koo ware a ñooxu ko koo may distance ndax ca rallonge bala ndeysaan kii ci defet la jóge kii ci victoire la jóge mu nekk combat boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp ku ci daan dina am fu mu la yóbbu ñaar ñëpp pour ñoom adversaire c'est tout c'est tout un problème looloo tax ñu boole leen Calme Ndour pour moom adversaire day métti caat bu waalo tamit noonu kenn ku nekk day jox leen samay morom caat bu waalo dee na moom bëggul lu day day saan ndax meer mbana nee na yaay la bàyyi kër ga waaye Calme Ndour it ne ko man du ma jaar jaar ama seen junior daf maa daan yow waroo ma war a daanaat caat na ko damay ñëw confirmer pour jàll ñu xool nag fu la fu laamu ji mu dee du mu dee kii gëtam ba tey dara xewagul kalmu nduur ak caat bu waalo ndeysaan ñi ngi lew lewtoo ñoom ñaar kalmu nduur caat bu waalo caat dafa mel ni dafa bëgg songu songu bi dafa mel ni la décidé xaw ma nag songu bi lan moo ko ci neex Kalbu Ndour caat bu waalo Kalbu Ndour caat bu waalo Kalbu Ndour caat bu waalo ndeysaan Kalbu Ndour waa école de lutte Boy Niang ñoo koy indi gis naa père de gol père xës waa Pikine yëpp kii di caat bu waalo Lac de Guiers numéro 2 Aline Seye numéro 2 Macha Pereira Aline Seye junior Papa Boy Djité ndeysaan booy pir ñoo ñoo ko indi tey taalibe Cheikh ndeysaan ak waa géej waay gi yëpp soqe kew ginaas roon mooy coach ba Kalmu Ndour caat bu waalo combat bi mënul yomb ndax ñoom ñaar ñëpp dafa am fuñ bëgg a dem Kalmu sànni na caat bu waalo ko droit mën na mën na ko. songaat na ko la bëgg ah crochet bi baat ah crochet boobu dal na de crochet ah caat bu waalo kal mu duur waaw waaw ba duur bu daan du ba duur bu daan du am ah ñi ngi mu duur doon ñaari crochet yu garaaw caat bu waalo kal mu duur mais kal mu duur daa mel kal mu duur benn benn lay xeexee quoi moom daa mel ne xeexu benn benn lay. waaw mais mooy li ma la wax rek. Kalma Ndour bu jógee ci kaw waaj ji bu saa ko daqee rek waa am na am na am na am na moyen pour dal ci kawam jàppante moom te jàppante bi loolu moo ko arrangé moom. jàppante bi la gën a moo ko moo tax mu dëggalee waatoo pour bëgg waa ji jege ko. ndax daawa ak mu dëggalee waatoo pour bu waa ji mu mën a teel a moom waaw. sama xarit. caat bu waalo. caat bu waalo Kalma caat bu waalo Kalma Ndour. ñu ngi ndeysaan caat bu wala Kalmu Ndour combat bu neex caat bu wala Kalmu Ndour combat bu met combat boo xam te ne warul mën a yomb ndeysaan caat bu walo caat bu walo Calme Ndour cinq minutes yi dafa gaaw gaaw leen ndeysaan waaw waaw daje nañ ñoom ñaar waaw waaw Kalmoundour takk na ko waaw waaw Kalmoundour daan na ko oh, daan na ba toog ci kawam oh Kalmoundour daan na ba toog ci kawam Kalmoundour daan daan na ba toog ci kawam oh, oh, caat jugal de mérito ndeysaan caat de mérito jugal Kalmoundour daan na caat bu waalo Kalmoundour daan na oh oh ndeysaan caat caat jugal expérience bu arbitre di nga xam ne maa la dàq bëre la ëpp doole. man ak yow fii du sax làmb ngay nekk fii di feemu. dëggal sa bopp rek nga xool dama lay neexal ak géem neexal la suite teg bësël bësël bi. sa ngaata gi ngay tëj wax ji ngay wax dafa bëri toujours nga def émission di jéem a xëw. arnaque bi da dal Kapsin Zambala bi la baana baana bi arrivé Congo cinéma de Paris. 1000 combats ma daan la 1500 fois ma la jàppee nga xam ne doo si dërëm. arnaque bi da dal ngay palaxu noonu.